ci ndigalam lañ koy defee waaye moom lañ ci jàppale itam te naka jekk e, mu di ñu ci soññ di ñu ci ñaanal di ñu ci taxaw wax naa ko keroog alxamis bi ma koy tàggu ji di ñëw fii yóbbaaleel ko liggéey bi sëñ Seex doon junj léegi dinaa ci ñëw muy brochure yi ak e, texte conférence bi <coughs> bu arab bi di ko tàgguwaale mu wax kàddu yu pas pastéefam yu yooyu mu baaxoo wax nga xam ne daray soññ ak di la eh, gën a xiir ci liggéey bi ba àggal ma ne ko ndax yàlla def na yoon wi ma mujje ba ci 2010 jàpp des 2011 décembre 2010 janvier 2011 eh, ba ma fa jógee ñu ñëw fekk comme nii rek màggalu tubaa jege si ñu def conférence ci jàkkee Sëriñ Souhaïbou Cheikh Ahmadou Mountakha ñëw eh, jiite si ko booba sëñ Sidi Muxtaar eh, moo fi nekk sëñ Baara dafi door a jóge ndax fin 2010 la sëñ Baara mi ngi fi jóg le 30 juin 2010 waaw ah, li may wax nii décembre 2010 fin eh, fin décembre la début janvier ca eh, conférence booba ñu fekk ñu doon def ci tukki géej gi waxtaan wi yàlla def ñu teg liggéey ba liggéey bi doon def si fii ci Mayumba ak Gabon ñu teg ko ci tele bi sëriñ bi xam naa seetaan na ko booba yàlla xam na ne sax xam naa suñu gisee taxu ko woon a bari noona wante cofeel gaa ngi fi woon ak mbëggeel géeg yëpp ndax moom ku ko ku ko xam ak ni ni ni mel ki sëriñ bi waaye mais ak dara ci ak yëg ki sëriñ bi yëg-yëg faa da nga ko sopp da nga ko bëgg Cheikh Ahmadul Muntaxa te naka jekk noonu la ma sameel Euh, suñu jëmm ju ñàkk solo ji awma awma lu may benn jamonoy màggal gi màggal gi jege safar bi ñu ne ci weeru safar bi sëriñ Cheikh Ahmadul Khadim Masam doomam xam ne moom maa ñoo moom ñoo bokk liggéey bi moom itam woo ma ne ah sëñ bi kat dafa maa yónni ci yow mu ne ko ah, man mii mu ne ma waaw ah loolu doy na waa fekk maa ngi soowu mu ne ma ñëw naa sax ci kër gi waaye dañ ma da ngaa génn mu ne ko ah maa ngi daal di ñëw bi ma ñëwee mu daal di yëkkati teraanga teraa ngay lii sëñ Cheikh naa doon wax ci ambassadeur yére wala ci xaalis bu bari dama sëñ bi kat nee na dalay jaajëfal ci liggéey bi nga liggéeyal sëriñ bi ndax xam tubaab yi kat boo leen liggéeyalee sax ba ñu am mbégte ca la nga leen defal dañ lay takkal médaille daana médaille bii nag nee na Cheikhul Khadim moo la ko takkal waa li lool ma daal di jël loolu def ko barkeel wax naa ko ne naa keroog mbub moomee dama caa xotti as aw aw aw aw aw sekkit li wala fi wax sekkiit <laughs> am na ñu ko xawut dama ko caa xotti denc loo ko de bis bu ma fi jógee na bokk ci càngaay yañ may sànge ci biir bàmmeel li muy yóbbaale ci biir bàmmeel ndax bëgg naa mu doon seede médaille bu la sëñ Tuubaa takkal sëñ bi loolu bëgg naa boo léegi mu doon seede sama diggante ak sëñ bi kon Mbàkke mënuma koo fay te loola la wéyal wax ci moom sax dafa may diis ndax sama cofeel ci moom Cheikh Ahmadul Muntaxa ku bëgg laa ngi sëñ benn bis waxtaan nañu ci bëgg sëñ tubaa ma ne ko man de Mbàkke damay faral di waxtaan ci mbooloo donte awma ci ndigal di wax ne sëñ Abdou Khadir daan wax ne sëñ sëñ Moussa Abdou Khadir ma ko nettali daan sëñ Abdou Khadir daan leen wax ne na ngeen bari lu ngeen di siyaar sëñ Saaliwu na ngeen bari lu ngeen di siyaar sëñ Saaliwu ndax siyaar ko day dolli Pastef murit moom sëñ Abdou ma ne ko ah loolee mu daan wax waa këram yooyu day man de dinaa koy faral di wax ne Cheikh Modou Mountakha yi saa boo digloo mu wax ci sëriñ bi te waxaan du génn sëriñ bi ak lislaam te mooy lislaam rek wala nga fekke jataayam boo bëggoon sëñ tubaa day gën a yokk sa passif sëñ tubaa day gën a yokk fekk mi ngi sonn mu daal di jóg ne ma ah, waaw bëgg sëñ sax de li tax mu am solo mooy day tax day day leeral xel di defar xol defar xol ma ne ah, kon de xanaa loolu mooy li sëñ wax ci bayit wane du jaanuha qawmin boo nii mu sëñ baara alaaj baara ñu ko sëñ fàllu moom itam yàlla def Cheikh Amar taxaw ñu boole ñoog chauffeur am ak kenn ci ñi yore ay chantier caam wàcc ci piste bi fa la ñu wàcc waaw bu ñu wàccee keroog population bi jigéen ñeeg ñëpp ñu ngi taxaw di ñu te naan xaw ma kii kii kii laa mbulaani mbulaani di samba samba <laughs> waaw samba mbulaani yee di diñu diñu di ñu dalal ak di ñu dénk tatagal mu dalal ñu ci vilaam bu mag ko ku mel ni Sëñ Ablaye Dieye ci la bokkoon ñu bari ay ay bara waaw Sëñ Ablaye Dieye Sëñ Saliou Sylla waaw ñu noppi <clears throat> war a ñëw fi visite sëñ sëñ sëñ Mourtalla gunge ñu ba ci baag bi mu ñaanal ñu ñu yéeg ñëw def fii suñuy suñuy visite baag loolu mooy ñaareelu yoon bi ci ci ci ci 2000 ñu ñëw fii ñetteelu yoon bi mooy 2000 bi ma doon junj léegi 2010 sëñ sëñ Mourtalla jot a yéeg fii moom dafa kii pont bi amu fi euh, bi moo fi ne dafa ba fee rek mu ñaanal ñu daal di ñu daal di ñu daal di ñëw waaw noonu la demee woon 2011 bi 2010 mooy bi ma doon wax léegi boobu itam ñu ñëwoon fi def fi liggéey bu ñeenteel bi kon mooy bii waaw kon bu mu tolloog maanaam quatrième édition yi loolu itam tawféex ju rëy rëy ngoog joo xam ne yooyu daal bëggoon naa ko ji muy am solo yoo xam ne tabaarkàlla bu ko defee nag xam naa waxtaan wi bi ah, dañuy tënk rek <laughs> ndax maayom ba dafa yaatu lool fu ne sëñ bi def na fa juróomi at waaw loolu dafa bari loolu bëgg ko waxtaanee ci ci ci dana day waar waaye nag dañuy seet yenn xew-xew yi waaw <laughs> waaw ah waaw waaw ah, man mii de bokkoon naa cox ah, ah, ni maa ngi photo yi ba tey ak vidéo yi waaw wallaay ndax jëmmi climat bi am nañu ko wax léegi ci ci bokk yi climat maa yomb xam ngeen ne fi mu toll nii rek ñu ngi ci climat bu neex ndax saison sèche la Mayumba wala Gabon lu ci bari diggante mois de mai quinze mai ba 15 septembre ci saison sèche la ñuy nekk boo xam ne taw bi day wàññi ndox mi du bari tàngoor wi du metti humidité bi itam day wàññiku waaye nag bu diggante boobu xasee jeex moom ku ne xam na ne taw bi day bari lool humidité bi foor lool tàngoor wi metti lool waaw loolu moom ñu xam nga moom xam nañ ko sëriñ bi dund situation yooyu fii metti lool ci koo xam ne climat sahélien nga xamoon ca Sénégal waaw waaw nga xam ne daanaka taw ba du bari lool taw nawet ku ne xam ne Sénégal na muy demee yooyu yëpp mu boole ko ñëw booleek nag yàlla boole ko ay jëmm yoo xam ne seen yéene jëpp ñu ëpp ci ñoom bokk bu dul ñëpp ñu ci ñoom mooy fexe nuñ ko fi jëlee rek ci nii wala ci nee ndax buñ ko bàyyi woon ci climat bi képp rek dem climat bi mën naa def ci moom loo xam ne ñoom lañ yéene woon dana ko dana dégg nga dana am ndax gis nañ ci archive yi ay ay ay maanaam résistant yi mbokk mi doon wax léegi ñoo xam ne suñu xaarim ñoo xam ne euh, dem nañ ba climat bi jeexital ci ñoom ba mënatuñu ko muñ te bokkuñu woon ak sëñ bi ay conditions yu ñu doon dund de dañ leen a dëkkaloon ci këri tubaab ñoom ñu ñu ne foofa donte sax da ay ay ay ay détenus ay déporté ay prisonniers la ñu woon politique nangam waaye dem nañ ba jeexitalu climat bi tax na ba dañ doon def ay leetar ay ay maanaam ay ñaan ñaan njekk ñaan njëggal di ko yónnee gouverneur général de pour ñu jëlee leen fi yóbbu leen ki seen njaboot amoon na ci ay sénégalais amoon na ci ay guinéens am na ci ay daawmeyens am am na ci ñoo xam ne dégg nga ay ivoiriens ak ak ak yeneen amoon na ci ñoom am ñoo xam ne def ñoom fi lañ faatoo sax far bi sëñ bi nekkee maayom ba am na ñu fi bokkaloon nekk euh, waaye yooyu yëpp di ci dugg day day day gudd moom mu ba noppi beneen ba ci des mooy nasaraan yi colon yi boo demee ci livre boo xam ne suñu bokk suñu béygee si la moo ko bind andi na ci lu ñuy tuddee guide médical maanaam guide médical boo xam ne lu mat ñaar téeméeri page ak juróom-ñett fukk ak nangam la tubaab bi dañ ciy wax ci ci ci ci diggante yi sëñ bi nekkee fii sëñ bi taxutoon ñu koy bind ñoom ñoo taxoon ñu koy bind mooy dañ ci doon wax niñ daan waajale seen colon yi ak seen fonctionnaire yi ñu fi daan yebal si pour ñu mën a dund climat dëkk bi ak condition de vie yi dañ leen daan waajal ci kër yi ci yére yi ci lekk yi ba ci dàll yi ñuy sol yëpp dañ ko daan waajal ngir bu bu ñëwee climat bi du mën a def ci ñoom effet bu négatif boobu ci ci ci ci ci ngir ngir ne loolu bi muy tàmbalee document bi sax dafa ne ndax nit bu dee tuxoo fu mu miinoon jëm fu mu miinut day mel ne garab goo xam ne da nga ko jëmbatoon fenn mu dem ba sax ba tàmbali dëgër màgg nga buddati ko yóbbu ko ci seneen suuf soo xam ne bokkul ak suuf sa miinoon laaj na toppatoo laaj na toppatoo ñoom dañ daan toppatoo seeni colon ak seeni fonctionnaire ci fànn googu xoolal nag Cheikh Cheikh Al Khadim koo xam ne bi bi ngay ñëw fii dañ laa bàyyeeg sa bopp rek ci saahir waaw nga xam ne cinquante francs yooyu waaw yooyu sax daanaka daaw ko jëfandikoo eh, indemnité waaw waaw mu ngoog waaw ñoom waaw kay waaw sëñ bi dolli ci sax ne ñoom tubaab yi dañ leen daan ci waaj waajtaay wi dañ leen daan jox itam ay maanaam indemnité yoo xam ne ci ci la ñuy di mbandikoo di ci gën a di ci gën a taxaw seeni soxlay bopp ak seen soxlay njaboot ba ci déporté yi déporté yi am na ci ñoo xam ne dañ leen daan booleeg ab suite ci seen famille Samori wax nañ ne ay ak njabootam la àndaloon ñëw ñëw njole ñu ngi fi ba léegi seedi bàmmeel kon sëriñ bi rek moo jóg ne man soxlawuma am na sax ñu wax ne doon nañ ko ko proposé waaye yaakaaruma ko wala moom booba moom gàntal na waaw ndax ba mu ne xusuuri xalat wal ahlu an nii te tafarraqat loolu dafa leeral ne booba soxla wuta ànd ak kenn te loolu la bëggoon ndax sëñ sëñ Fall wax ne booba dem rek la ne siiw te dem gi mënul am lu dul ruuxale ak jaxase yeeg tubaab bi bañ génn ko yóbbu ko te sëñ Saliou daan wax loolu sëñ Fallou moo ko nettali sëñ Fallou Baye Fallou moo ne ma c'est sëñ fa sëñ Saliou wax ci laa ñoom ne ko yi yóbbu woon sëñ Tuubaa ci géej gi bu seen yéene selloon mu ne kon ñoog seex yi njëkk topp sëñ Tuubaa ñooy tolloo maqaama maam Thierno ak Cheikh Ibra ak sëñ Issa ñooñu ndax lan dañ ko rendre service la mu bëggoon te mënu ko woon defal boppam ñoom ñoo ko defal nga xam moo tax day wax na yàlla moo jaarale génn gi ci ci ñoom te loolu la siiw loolu rek la bëggoon waaye yéene ja moo nag moo tax kenn ku nekk ah, la cay sa kii nga am kon boo boolee yooyu yëpp sëñ bi jànkonteeg moom waajaluñ ko nag kenn waajalu ko ci yooyu ni ñuy waajale seeni i kii euh, gis nga l' administrateur du Saint-Louis muy Leclerc mi nga xam ne moo ñëwoon jeewal doon doon nee jàpp si sëriñ bi kooku rek pour wanal tubaab yi Gabon dañ koo defoon bërëb boo xam ne kuñ bëgg a yar sax ki seeni kilifa fi lañ lay indi Cheikh Amadou Bachir moo ko nettali ci ci minan nee na waa jooju Leclerc moom bi nga xamee ne def dem na ba def ba wax ay pexem ba sëñ bi ñëw Gabon dafa def ak njaaxum moom itam tooñ état France ñu dajaloo ne nañ ko sanctionné ñu ne nañ koy sanctionné ñu ne nañ ko génn réew mi ñu ne fu ñu koy yóbbu fu ne ñu xalaat fa kenn ne fenn képp ngeen ko war a yóbbu mooy fa mu yóbbu Ahmadou Bamba mii nga xam ne ci ay pexeem dong ak i tappaleem dong la jaare ba sëñ bi dem Ahmadou Bamba dem yóbbu leen ko foofa muy Gabon ñu andi ko Gabon Cheikh Bachir nee na sëñ bi wax ne ma ni yàlla jaarale woon sama tumuranke ci moom muy exil bi noonu la jaaralee itam woyofalug jafe-jafe géej gi ak ñibbi gi ci ci moom ndax dafa agsi rek nee na am kersak sax bëggul sax ma gis ko wala boo xam ne maanaam maa ngi fi waaye nee na ku mu ku muy waxal ci ay kilifaam lam lay njëkk wax mooy ah Ahmadou Bamba moom na ngeen tey ci moom de lii ma dal lépp moom ko teg te nit ku baax la ku yiw la koo xam ne ku am solo la ku bari mbooloo la ci réew ma te moom moo ko tuumaaloon naan day wut ay ngànnaay ak yónnee na at mu fee ak dajale na mbooloo nangam gis nga kon na euh, xëy na commandant wala waa ji nekkoon njaari maanaam les salve nam nam defoon ba mu ñëwee mel ne kuy sonal sëñ bi fekk da koy setal si kii moo ko kii kii moo ko njëkk def muy l'administrateur du Saint-Louis muy dégg nga Leclerc kon dañ ko andi woon fii pour sanctionner ko di lu am solo ci jaar-jaar sëriñ bi ci tukki bi xew-xew yi fi xew eh, foofu damaa bëggoon rek bala ma cay sori ma wone taxawaayu soxna yi ci biir tukkib sëñ Tubaa ci géej gi ngir ñoom itam ñu yóbbaloo ko xam ne am nañ ci wàll te fii la woon ci maayum bëgg la xew woon ba demee ci irwaawu nadim Cheikh Ahmad Lamine Diop daga ko ne sëñ bee ko nettali sëñ Maxtaar Binta itam daana ko nettali mu yelli sëy mi nga xam ne moo doon xuloog tubaab bi buddi woon ñeenti bant sëñ bi fii dinañ ci ñëw ci bant yi léegi dafa amoon soxna su mu fi nekkaloon soxna si tur wii léeg-léeg bu dee ci irwa amina la ko sëñ bi laa bi tuddee ci mañ moo bi am na xawaa lu ci mën di xew siwaar bi lëkkaloo ñeenti bant yi sëñ bi sampoon fii te muy xeexoo bu am solo bu mat a taxaw ak bind yi ci nekk ñeenti bant yooyu sëñ bi laa na ko fii ci irwa bi nga xamee ne yàlla dogal la sëñ bi sant ko ngir mu dox di gëm ak ñi romb ah, ah waaw waaw wax nañ ne sosoriwul daal fii ci ndax néegu sëñ bi labbe boobu ñu wax noonu Euh, bi ñu koy laaj dana sëñ bi fii fii fii la defoon néegam te bant yi ci buntu néegam la ko defoon kon moom duñ ne fee fii waaye moom mën nañu daal soriwut waaw waaw euh, ci ci barab bi la yàlla dogal nee na mu ne ko na mu ñëw ne ko nañ ko dindi ñu dindi ko sëñ bi laa mi sax nee na sëñ bi nettal na ko ci xoro mu ne ko am na ci waaju kàccoor joo xam ne moom ngir dëngi sëñ bi woon ak wan ko la ko ak naqaral ko dafa jël ci bant yooyu dem ba ca wanagam mu samp ko faa ca wanag ba muy kiyee nee na waaye amul lu may benn jamono rek mu soxla ndox ci wanag waa jël satala gu tàng te xamul ne dafa tàng rek mu sottee ko mu daal ko sotti ci kawam ci awra ba nee na daal di téye ci tubéy ñu fekk sëñ bi toog mu naa ko soo ma dimbale woo rek dinaa dee <laughs> sëñ sëñ bee ko ne sëñ bi mi ngi ci gën waa sëñ bi laa sëñ bee ko na nee na mu ne ko ah moom daal xam naa bu yeboo nga muñte ne rek te te te te wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun <laughs> te te waaw te te te nga muñ rek waaw kooku kon gis na pay ga fa saasa moom waaw man day waxal sax ne maanaam lan moo tàngal sat la googu théâtre boobu gars yi naan ku tàngal satala gi foofu lañ ko war a laajee kan moo tàngal satala ga waaw kan kan moo ko tàngal ah? Ah, loolu mën naa laaj sëñ bamba kenn la maasam dootu am moo jiitu sang si dee faa dégg ak si nu gis sëñ bamba kenn la maasam dootu am tadu am moo jiitu sang dégg ak sunu gis mboolem ku koy bëgg a def maas nag na sàkk ku mel ni seex ak ibra faal ibra faati nu gis sëriñ si yéen ngi nii tee def ni nu def jébbal ko seeni kurus jébbal ko seeni kurus sëriñ si yéen a ngi nii tey nga xëy daje bis te dikk def nii nu def jébbal ko seeni kurus dañu sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a xëy daje bis te dikk def nii nu def jébbal ko seeni kurus ku fas ne bàmba daal samaasum baay la dëggu jógal ànd sa jëmm te dem maa del suñu gis ku ko def da nga xam ne du moom de ndax maa yomba yomb la dem ba timis timis yi bëggee jot bu nit ñi doxal woon seen diggante kon ñu xeex waaye bind bind bi ñuy jàng foofu mooy sëriñ bi ak li muy am am lu ko naqari ndax naqaram dëgg-dëgg wax nañ ko tey mooy mu bëgg a jaamu yàlla ñu ne ko doo fi jaamu yàlla wala nga bokkaale yàlla ci kanamam boo ko doon tooñ ci jëmmam xam nga natt lañ ko fee ci Libreville ne natt yi li muy bari bari amu ci benn natt boo xam ne nattu baa ngi ñëw ak lu rëy rëy ba tax mu tiit wala mu wala mu soxla ñaan xettali ko ci booba nattu bu dul julli géej gi ndax booba jaamu yàlla la bëgg naa jaamu yàlla nat lañ ko faatloo waxtu wi mu ñaan boroomam mu taxawu ko téyel ko ruuxam ba mu julli waxtu yi ba noppi waaye keroog ku ne xam ne ne ñeenti bantam yii biñ ko buddee am na naqar wu rëy boo xam ne moo ko waxal boppam ci xasida ak ay yeesa gi nga doon jàng léegi ci saaqali xeyrillaahu fi maayoon baay jooju waaye xoolal muñ ga nee na damaa muñ lewet noppi xuloowut merut wala bu meree itam feeñalu ko ndax mer ci ci yàlla la koy def waaye du mer ngir bakkanam walastu lin nafsi fi daarayni antaqimu ni sallallahu alayhi meloon man taqama li nafsihi xat moom sallallahu alayhi wa sallam da xotti war may diine rek mu mer waaye tooñ ko ci jëmmam rek tax mu mer déedéet mu sàmm suñ tubaay itam noonu nee na mosuma fayantoo mukk ngir sama bakkan ba ci xisa boobu ñuy nettali ca fële ca làmbar na ja ki ko doon fay si xaalis bi te te ñu wax ne sëñ bi da ko ko da mu xaañ ko xaañ ba ak yëpp xaal ja du dara lu dul bokkaale gam bokkaaleeg moo ak ak yàlla xaalis bi mu jël bëgg koo def yalla ci kanamu sëñ bi loolu rek ko naqari waaye du leneen waaye moom daawul mer ngir bakkan wala muy fayantoo ngir bakkan waaye ci diggante boobu bind xasida ak raditu an il mawla yi nga xam ne mi ngi ko tënk rabbana axrijna min hadihi al qaryati zalimi ahluha wajal lana min ladunka waliya wajal lana min ladunka nasira raditu an il mawla bi nga xam ne sëñ Lamin wax na ne xasida am tasir la ci ci ci xëcc ak jañ waaw gu rafet la tawila xasana waaw maanaam xawiya fi fi tasir daal ne ki koy jëfandikoo na ragal yàlla rek moom la sëñ bi tàmbali di ko woy bi mu ko woyee nag ba agsi ci lahoktub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajaal bihi masjidi rahba ñaan yàlla mu may ko jumaam ju yaatu ci lañ ko waxee ne ko nag nangul nañ la ñaan googu da nga am juma jooju ngay wax da ko gis ak sax yeneen i juma moo tax sëñ bi nee na bi jumaa njaarim ji noppee nag ba yëlli sëy moom yi doon xuloog xuloog waa ji ñibbi si Sénégal dem Ndar xelam ne ci siyaare sëñ Tuubaa mu ñëw njaarim fekk jumaa ji noppi sëñ bi Lamin ne sëñ bi ne ko Lamin àndal ak kenn kenn ci fere yi ak yelli mi gan gi mu dem xool jumaa ji te ñëw mu dem xool ko biir ak biti kaw ak suuf ndeyjoor ak càmmoñ ba mu ñëwee xam xam nga nu ko sëñ bi wooyee ayyuhal wala al muqaatilu an <laughs> nga xam ne yaa ma doon défendre di xeex ngir man waaw noo gisee sama jumaa ji ak ñeenti bante woon ci maayumba mu ne ko subhanallah sore lool mu ne ko loola nag laa jublu woon ci bayit wii saaqa sëñ bi laa na nafaa waaye saaqa ji moo ñëw ci ay ayesa saaqa li gayrillahu fii maa yumba maa saa wa alal janba yàlla dàqal na ma ci maa la naqari woon sama xol daa di ko naqari xol ga mooy lan buddik bant ya ndax moo doon jàkk ja moo doon jumaa ji waaw waaw moo taxawoon taxawu jumaay njaarim ak jumaay tuba daa di ko ne nag wa alal janba ji mooy yëkkati wàll gi yëkkati kawel sama wàll mooy irtifaatu manaari ma irtifaau manaraati hada al masjid al jurbeli yëkkatigug sooroor yi jumaay njaareem ji ak sax ju Tuubaa jeeg ju basaali gëg ju ak yi ñu wara a def fii ci <laughs> maama yomba ak yeneen ak yeneen insha allahu taala waaw ci barab bi <laughs> kon loolu eh, xew-xew yi la bokk waaye dafa am yeneen i yeneen i xew-xew yoo xam ne mënees na koo mënees na cee jaar ndax moom itam bi ñu koy dégg bariwut suñu sëñ bi laa indi na ko mu am solo lool muy lu mel ne jaayante gi mu jaayante woon ak boroomam ci bàyyi lépp luy xeetu jën na dawalu géej yi siñ bi da ko jaayante bàyyi ko te fii la ko defe woon te nee li ko waral mooy bi ma fi nekkee nekk fekk làbbe yi ñu ay kilifay diine ñu am aada yi lekk léeg dañ leen di booleeg ay ay ay gone yu ndaw yoo xam ne dañuy nekk ak mu ñoom bu ngoon jotee ginnaaw tàkkusaan ñuy ñuy génn dem ci dëkk bi di doxantu ñu bu ñu amee lu ñuy jënd jënd ko jox leen ñu téyel leen ndax il faut ñu leeral leen ne sëj bi du caagee nag ne ñin ko daan booleel ci ay ci ay nasaraan ñëpp ko daan def lu lu ñaaw léeg-léeg daana dajeeg kilifa tubaab goo xam ne day woyof day day day day woyof woyofal mbiram ci ci diggam ak sëriñ bi ab jëflanteem dan dana am dañ ci nettali sax ñoo koo xam ne sax sëñ bi suru ci minan am na ko mu indi ko sëñ bi wax ne koo xam ne kilifa tubaab gu mag la goo xam ne ci géej gi da doon tukki bis woo ak njabootam soxnaam ak i doomam ne leen sëñ tubaab mi leen dégg sab noonu sëñ bi bu demee bay jël njaboot ak tubaab ni mu fonke soxnaam ak doom di ko dénk koo xam ne da nga ki nga ko jàppe yow mooy koo xam ne da nga koo da nga koo déporté di ko ca ci Afrique andi ko muy dégg nga maanaam kuñ téye ci ci saayir ci saayir de mam boo boo jàngee assiru xam ne du loolu assiru jee moom leer na ca waaye ci saayir si rek koo xam ne da nga ne kii danga nga koo téye ci kaso nga dem ba am ci moom kóolute gu wér tax nga ne yaa ngi tukki waaye nga jël sa soxna ak sa doom jox dénk ko am na am na lu ñu xam ci señ bi kon nee na ñu kooku nag kilifa tubaab gi fi nekkoon xëy na jamono yooye ne ko boo soxlaa ci xale yi ñu jox la ci kenn ne man ko ne ko ah, baax na jëru ko ñaareel ba it mu bokk ci seen aada kilifa yi fi nekkoon di ay kilifa yi làbbe dañ leen daan jox ay booy yu mag ay xale yu góor yu mag ci waa réew mi na ko waxee sax ci waa réew mi ñu ñuul ñi ñuy nekk ak ñoom di leen servir daal xam naa mu ne ko mu jàpp ne soxla naa ci mu am ku kooke ñëw bi mu ñëwee ba jub ma nee na sëñ bi wax de nee xet gi xeeñ lool ba jéggi dawee ma dàq <laughs> nee na mu dem muy ñaar xam nga beneen bi nee na benn bis damaa toog bëgg a dundal sunna ndax ni ko am na ko ko wax sànq yi mu daan jëfandikoo fii sëñ sëñ Mbàkke bu sa wax na ko ci waxtaan am solo yi mu def ne sëriñ bi te loolu mi ngi ci maanaam war a xaat yooyu sëñ bi nettalee bari ci tukki bi détails yu am solo yoo xam ne sax rëddul sax ci yenn téere yi muy wax ne benn bis loolu mu ko nettalee ne benn bis toog na soxla lu mu jëfandikoo mu jël aslëf ci ceeb boo xam ne amul benn rënd rënd maanaam saf-safal bu dul xorom kese yónnee ko ci benn toggkat kooku toggal ko ko ba noppi di ko laaj njëkk ne ko da may fay da may fay li bala li ma la toggal gis naa ci weneen bayit boo ne sëñ bi dem na ba mel ne kuy tuub sax toggaloo gi mu doon toggaloo kooku waaw waaw di ko tuub nga xam ne baatu istitbaax la jëfandikoo mooy sàkkoo toggalu léegi nag nee na benn bis nag mu muy muy mu ne nag na na na wut jëfandikoo na mos dara loo xam ne xeetu ndawal la ñu wër wër gisuñu fi lu dul jën jën yu sew yi nga xam ne day ne ci petit sardine yi ñu wutal ko ki dara mu mos si bi mu ci mosee bàyyi ko raxasu laal saabu laal suuf lu ne mu def ko rek xet gi des ci loxo yi nee bi ma demee ba jël sama xalima bëgg tagg rasulullahi te moom xam nga àggoon na foo xam ne buy tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day teew xaraf bu mu bind mu mu mu muuñ bég ida katabtu tasama sujaau wa harabal xibbu lahu aw jaaw dina saa su ma bindee rek sallallahu alayhi wa sallam muuñ iblis daw yóbbaale ay métit te loolu ci géej gi ak mujju géej gi yépp noonu la demee ak ginnaaw sax géej gi sallallahu alayhi wa sallam day teew bi muy bind nag xetuk jën gi des ci xet jën dafa am xet des ci loxo yi di lor yonent bi suñ boroom wax ak moom ci alquran ne ko wa minhum alladina yuuduuna annabia wa yaquluuna huwa udn sëñ bi loolu xam nga taxu ko woon a jóg waaye ci lisaanu xaal aaya bi moom lay waxal am na ñoo xam ne dañuy lor yonent bi mu xam ne moom lay wax muy xetu jën gi mu daal di ànd ak xaal nee na mu mel ne saaiqa tempête sama kaw mu ànd xaal ba xaal gi desiwaatee nag mu ne nag jaayante nag yàlla duutuma laalati lu xeetoog jën ci àddina xam nga kon am na foo xoolee am na maanaam ñetti yëf yu mu jaayante bàyyi ko muy waxambaane ñu ñuul ña mag ña ak seen gone ya ak jën yu ndaw yi ñu teg ci diir bu gàtt yàlla yabal ay jëmm yoo xam ne moo xam moom ñu mu doon ay asxaab daal la leen tudde ay asxaab sëñ bi nag ay asxaabam mais mën naa doon nit mën naa doon jinne mën naa doon leneen man doon sax de ay malaayka mu yàlla yebal ay asxaab ñu ñëw fekk ma fi ma nekk kenn ku ne ŋàbbu ab gàtt am xar am kuy ñëw ziyaare yëkkati gàtt ba jox ma ne ma ne ah gii gii bay de gaaw na ne na ma xam ne kon ñoom ñoo ñii indi gàtt yi xaw xamu ñu mu doon sëñ bee xam ñoom la ma yàlla fayee waxambaane yu góor ya yu mag ya ak xale yu ndaw ya ya ma jaayante woon gàtt yooyu moo jox moom la ma fayee jën yu ndaw ya ana ma qultu wa jaa samanu sigaari wa samanu lkibaari wa sigaari muhammadun xayru imaamin jaari wa fayduhu ila fuaadi jaari muy ñaari bayit yu neex te te am te am balaaxa lool nag ndax baatub kibaar bi ak sigaar bi rot ci bayit yi mel ne da koo baamtu te bokkuñu ay maana ak ñaari jaari yi am ci ñaareel bayit bi yooyu itam ku am ku am am balaaxa ak bayaan xam ne lu am solo nee naa man sëñ Tuubaa njëgu as ñëw na maanaam xale yu ndaw ya xale yu ndaw ya ma bàyyi woon ngir yàlla seenu njëg yàlla jox na ma ko ñooñe seenu njëg mooy wax mooy asxaab yi àndandoo yi indi xar yi jëmm yi indi xar yi wa samanul kibaar yi ak njëgu mag ña mooy xale yu góor yu mag ya ñoom itam ba tey ñooy ñii rek ñii ñii ñoo leen wutu wa sixaar ju ji nag mooy jën yu ndaw ya <laughs> jën yu ndaw ya ma bàyyi woon nag yàlla andil na ma ko lu lu ma ko wuutalal mooy ak baas yi maanaam xar yi xar yu ma xar yu xar yu mag yi daann Muhammad moomu nga xam ne nag mooy ngën ji imaam mooy sama dëkkandoo nag jaari ju njëkk ji mooy sama dëkkandoo wa fayduhu ila fuaadi jaari jooju ismu faa'il la ci jaraa jaraa yajri jaari yi mooy aji daw ak mayam ak xéewalam day daw jëm ci sama xol kon loolu ci xew-xew yi xew fii la bokk muy muy liggéey muy fay gu ko yàlla fay goo xam ne yéeme na xam naa saa bu ngeen doyalee rek nee na nee ma doy na xam naa doyal sax du am waaye daal bu ngeen bëggee ñu tëj rek ñu tëj ndax moom dañuy waxtaan waxtaanu sëñ sëñ Tuubaa te waxtaan sëñ Tuubaa moom kenn kenn du ci doyal waaye nag waxtu yi itam dañ ko a bàyyi xel ak toogaay bi <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw aje moom kay <laughs> waaw alhamdulilah leneen li ci des mooy li mu wax ne tudd gi muy tudd léeg-léeg xeet wi ndax Mayumba dafa am xeet wu fi nekk waaw muy muy xeetu baawili yi ba baawili sëñ bi ci ubbiku gi da ci ci njàngaleem ci géej gi géej gi moom dafa am solo dafa tukki bi ñëw gi moom da koo jox solo lool moom sëñ Tuubaa ba lim ci bind sax da naan lii moom ke doy na waar saa boo xëyee gis ci lu bees li ci xam sax pour nga jeexal ko yombut ba fëli da koy tudd muy xeet wi fi nekk waxoon nañ ne mooy les wili wili ñi fi ne ñi fi dëkk te yàgg ci Gabon xam nañu ne baa baa boobu ñuy wax ci seen làkk ñoom waa waa Bantu muy xeet civilisation Bantu bi nga xam ne ci xeet yi fi nekk Gabon ci lañ bokk ak ba Afrique du Sud sax ba yaatu na dem ba Congo français Congo belge yëpp xeet wu yaatu la civilisation bu yaatu la woon Bantu bu ñu nee baa ci ñoom mooy lee nangam maanaam baa wili mooy lee wili waaw ah, ah. waaw baa lumbu lumbu bokk na ci xeer yi dëkk fii ci Mayumba muy baa lumbu lee lumbu ba ci baa punu le punu ba ci yombe baa yombe am na yombe fi ne maa yombe gi ñuy wax am na am na maa yombe geneen gu bokk ak maa yomba gii Guinée Congo foofa fi ne ñu dëkk ay ay yombe lañ leen di tudde <laughs> ñoom itam fi ne aw xeet lañ waa waaw waaw <laughs> baa punu baa wili ba ba ba ba baa lumbu ak yu mel noonu waaw ba ba fël bi nag moom buy bind ba baa wili ji faa gi vin bi ci France da koy def faa war na wax baa fëli moo tax bayit yi nga ñu tiim ko ciy lu bare bare waaye sooy xool bayit yi day day mel ne dafa niroo ndax baatu maxfal jim ci baamtu dafa bari maxfal te dafa am solo dafa am dafa am lu muy doon junju fii bi mu nekkee maayom suñu borom won ko fi ne ni mu ko wane ndax jumaa jooju ma doon nett li ñi maanaam ci euh, bantam yooyu am na ki loo xam ne tudduñu ko mooy te loolu sëñ Fallou ko nett li bi ko suñu borom xamalee ne ko jumaa jooju da nga ko gis te sëñ bi taalifaat maanaam mawaahibu naafi'a mawaahibu ak bu liñ gën a jàpp ne moo gën a wér mooy ne fii la ko sëñ bi yeesale taalifoon na ko lu jiitu muy dem ci géej gi ca Tuubaa njëkk ja sëñ Sambay man dégg naa mu jàng ay bayit ci gis bu mu njëkk xamitu dégg nga rabbal alamin xam nañ ko si nangam bay wax si bu njëkk ba moom la wax bas googu am sëñ bu njëkk ba mu nga wax waaw yëpp sëñ bi wooyoon na ko waaye bi mu ñëwee fii nag ci maayum ba la ko rasulullah joxaat ndigal ne ko na ko yeesalaat foofu la yeesalaat yi waaye si misaak wax na ko bi muy bi muy bi mu bi ko suñ borom wanee jumaa yi ba mu ne inni bi madaxi aayantu ribxi qadan wa nujxi maal binaay ci tagg rasulullahi laa jàkkaarloog sama tono woo ak sama fajuk aajo waaye ci laa jàkkaarloog tabaxub jumaa ji ak tabaxub liggéey ndax albina ci xasida sëñ Tuubaa léeg-léeg mu tekki jëmmi jumaa ji waaye léeg-léeg mu tekki liggéey liggéey liggéeyam bépp li mu tabax lépp taxawal ko ci àddina te muy loo xam ne du màbbu léeg-léeg itam albinaaw taxawal ko moo tax mu wax naan binaa yi xaalis sama tabax sama tabax dafa sell wacaal binaa iye binaa an xaalis sax yooyu mu wax mën naa gën a yaatu sëñ Fallou ne bi mu ko defee jinne yi dañoo ñëw ci moom sàkku ndigal ne ko dañoo bëgg jumaa jooju jumaa Tuubaa jooju la suñ borom suñ borom da koo won ah yentu mooy jàkkaarloo naa mooy loo xam ne ni ma jàkkaarloog si seex noonu la sëñ bi jàkkaarloog jumaa ji mu xam ne lu am ba noppi la nee na jinne yi nekko ko jox ñu ndigal ñu tabaxal la ko foo ko bëgge ak noo ko bëggee bu la neexee sax ñu def ko tabax wurus mu ne leen waaw baax na de seen yéen rafet na waaye damaa bëgg rek ngeen jéggal ma ndax damaa amul njaboot gu bàyyi ginnaaw te bëgg naa ñu jariñu si man te naa leen njëriñ loolu moo tax mu tekki ne su ngeen ko defee falilahi alhamdu jumaa ji su ngeen ko defut nag yàlla dana wàcc ay jëmm yu ko def am na ko wax sànq ci waxtaan yi ne li liñ bëgg fii bu amul itam yàlla dana defe naa suñ bi ko doon wax waaw waaw waaye ko doon am loo xam ne bu bu buñ ko defut itam ba nga ko waxee sama xel ci lii la dem <laughs> ne sëñ bi moo sëñ Fallou ko nettali ci làmmiñam ñëpp dégg nañ ko ci kaset yi sëñ nee na mu ne leen su ngeen ko defee falilahi alhamdu bu ngeen ko defut yàlla dana wàcce ay jëmm ñu yokk ñu ko def na ma ko bëgg ak ma ko bëgg daal ne ku ci feeñ nag feeñ ba faw ku ci suulu dootoo feeñ ba faw muy jumaay Tuubaa noonee it la ko wone màggalam gi ak mbooloo ma yépp fi la ko wone moo tax ci ci bayiti baafal yi nga ciy dégg lu bare bari muy tudd maxfal muy mbooloo ak ensemble ak ak ak ab dajewukaay bu mbooloo mu bari dégg nga di daje te saa bu koy wax da koy wéer ci boppam sama mbooloo mu bari mii may seen te war ñëw ëllëg te liggéey bi ma ko may fii laa ko xeet wi da koy lëkkale xeet wi ila nabi awsaltu inda bafali abkaara am daaxin anaarat maxfali yonent bi day liggéeyal naa ko ci baafali ci xeetu baawili ci maayu mbakon abkaaru am daax dégg déggal jooju waxin tagg yi mu tagg rasulullahi da koy misaal ci ay xale yu jigéen yu ay xiij njegemaar yoo xam ne xamaguñu sëy maanaam sëyeeguñu yu set wecc laab mooy tagg yi moom rekk ko mas a tagg rasulullah moo ko njëkk waaw alayka usni bi abkaarin ajiu biha min alfuyuud allati tansabu widaana abkaar mooy jama bikr ndax yeesaay bi ak sellaay bi ak ñoŋ gi ak njëkk gi mu ko njëkk def mu ne nag xeeti tagg yooyu tagg naa ko rasulullahi fii ci ci xeetu baafali baaweli tagg yooyee moo leeral sama mbooloo moom yi may junj ci waaw waaw baafali fii la maa ngi ba xeet wu yaatu la dem na ba ba Congo ila nabi wajjahtu inda baafali qablu bima bihi anaara maxfali te saa bu wax maxfal faaw mu tudd leer ak leeral jox naa yonent bi fi baafali lu njëkk mooy bi ma fi nekkee liggéey boo xam ne moo leeral sama mbooloo ma lil muntaqa madxiya inda baafali bima anaara watani wa mahfali sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo tudd Muntaqa di ko sell tagg naa ko fa baafali xeetu baafali tagg woo xam ne leeral na samam réew leeral sama mbooloo kon leerug réew ma fii la ko sëñ Tuubaa liggéeyee te leer leerug réew ma mooy Seexul Xadiim rek mooy sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa mooy leer mooy leeru réew ma ak sama mbooloo daal di ko jeexale ahdaytu lil muxtaari inda baafali bi bikri xidmatin bikri ñëwaat na foofu léegi nekk mufrad nag waaw waaw <laughs> bi bikri xidmatin anaarat mahfali jox na kado adiya muxtaar sallallahu alayhi wa xeetu ba afali ci xiigu tagg bu bees teg paquet boo xam ne kenn dajjiwu ko moo sallallahu alayhi wa ko ci ka <laughs> boo xam ne liggéeyal ko la liggéeyal ko boo xam ne moo leeral sama mbooloo gis kon yii yëpp sëñ bi da ko daan tudd di tudd dëkk bi waaye di tudd itam xeet wi nga xam ne ñoo fi nekk noonu itam la wax la waxante géej gi waxante géej gi bind yu am solo da see bind tawxiit a ngi ci bind njàmbaar a ngi ci fit a ngi ci euh, dëggoo ngi ci ci ci seexul xadim ndax booba gis na ne ñii ñi ko wër labbe yaa ngi nii église baa ngi nii kolos baa ngi nii te booba fii sëñ bi labbe boobu sëñ sëñ Seex nu mu tuddati nga ne Père wax nañu ne bâtiment bi féete nee bâtiment la boo xam ne dañu ko defoon spécialement pour former pasteurs yi pasteurs yi nga xam ne saaru maanaam ñi nga xam ne ñooy ay nekk xaw ma ay maanaam séminariste séminariste yi fi la ñu daan formé ci pasteurs yi waaw ak euh, prêtres yeeg yi booba sax évêque am na évêque bu mag bu ñu daan wax maanaam kari kari boobu mi ngoon lowango gii ci ci Congo da daan déplacé foofu di ñëw fii di def loolu di delluwaat waaw ah luwaangu ah waaw ah, waaw waaw dégg nga <laughs> ci Saalum waaw waaw lu ah macha allah macha allah waaw waaw waaw waaw. <laughs> Ah, kari kari kari ba sax foofu la luwaangoogu la waaw xam nga bari na sax ñu ñaan dañoo bokk nekk sëñ bi maa Mayumba ci ay exilé yoo xam ne luwaangoo googu lañ lay lañ nekkoon gëstu yi ñu mujj def gis nañ ne ki sëñ bi junj ci ci irwaaw nadim am na ñaar ñu ciy tudd ñoo xam ne ay sëriñ lañ tubaab bi da leen exilé woon sëñ bi nee na ci baax gi ak yërmaane ji ak solidarité islamique bi ko yàlla binde diine mu dégg ne ñooñu tubaab bi yóbbu na leen mu xalaat tubaab bi jaxasoog tubaab ni mën a rekkee ngëm moom rek moo mas a jaxasoo jaxasoo tubaab jaxasoo bu mel ne bi mu def ñoom li sëñ ko sa doon nett li taxul waxuma la ngëmam gu gu rekkiku waaye ngëmam dolli ko far waaw ndax maarifa jooju ak wusul googu ak yaqin googu dolli ku liimaan la ak lislaam ak lixsaan te safaan ba moo daan am tubaab bi kuñ masaani jéem ci yow ak loo doon doon borom pas-pas bu la yàlla dimbaliwu dara ñu ñu daal di rekk sa ngëm nee na bi ma déggee ne nag kii maanaam sëriñ làmpañ ak sëriñ fetto muy sëñ Mouhamadou Seck ak sëñ Mouhamadou Diop muy maanaam ma jób aram dañ leen a exilé te nee na xamaguma fu ñu leen yóbbu àdduna dafa lëndëm ci sama kanam moom sëriñ bi te boobu mi ngi fii de na nattu yi nee na ma ñeewante leen lool ndax xam tubaab ak fexeem ak ni mën a rekkee nga mug jullit ku baax ci xupp ak xëpp ak yu mel noonu nee na ma daal di jël sama xalima fekk mi ngi taalif xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fi l ard nee na nee ma jël sama xalima daal wax yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra qaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajurru sakka <laughs> di leen ñaanal yàlla rek yàlla musal leen ci natt yooyu ñu nekk ak tiis yooyu bañ mën a dellu seen njaboot ñooñu nag ndekete bu dee sëñ Mahamadou Seck moom xam nañ ne luwaangoo gi lañ ko la la la nekkoon am na jàpp ne maa yombal sax waaye luwaangoo gi moo moo moo gën moom sëñ Seck sëñ sëñ sëñ Mahamadou Seck waaw ñi xam yàlla la wax ak mboolem ñi am yàlla yaa ci raw ne ko sëriñ sépp am ndam waaye yaa ëpp ñëpp ndam da ne ko ñi xam yàlla ñëpp la wax ak ñi am yàlla mbàkke yaa ci raw sëriñ sépp am ndam waaye yaa ëpp ñëpp ndam ne ko ku lay way du bon waaye ku lay way durus waaye ku lay jomba way nag lee mu xëy mel ne mbaam <laughs> ah, waaw kon ñu ñu ñu jeexal ci diggam ak géej gi rek waxtaanu géej gi ya eh, waxtaanu diggam ak géejug Mayumba waaw ñu xanaa comme ñëw ji débat bi kon mënoo ko noonu <laughs> ah daa sëñ bi <laughs> euh, tawxiidi sëriñ bi dafa feeñ ci ci géej gi ci bi muy xutba géejug Mayumba gi xutba waaye bu ñëw ci wolof xëy na wax xutba gi mooy wax waxante rek ndax sëñ Musaa Ka wax ne keroog Bamba ba géej ga nangam ci baxaru maayam la leen di mooy bi muy wax ak géej gi te di ko seedeel tawxiitam ak doon gum doon jaamug yàlla jaamub yàlla loolu dafa dafa am solo ndax booba wax naa ko ne booba labbe yi dañ doon eh, da ñoom li ñuy wax tasliis ma aqidatu tasliis ci ñoom mooy li ñuy wax trinité trinité aha te mooy seen kii bi croix beeg yu mel noonu waaw loolu sëriñ bi da cee xeex ci géej gi jihaad yu rëy rëy rëy ci xalimaam xasida ak busra lana lillahi rabbil lazi fulku jëlal fulku rek fulku yaa jumlatan waaw xasida yooyu nga xam ne moom da ciy jàkkaarloo ak ñoom te bu masaana taalif bàggal da ko daan yëkkati di bàgg di ko jàng ci kaw di jaar ci seen biir uffin la lakum lahum maanaam mbas ma leen nangam tabban lahum xaatulu aha ci fulk waaw xasida goo xam ne aay bi mu ko tëkki rek da ngay xam ne du aay bu bu maanaam bu bu bu woyof bu tàng la waaw yow yow yéen ñi gëm yàlla xeex lee nag ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege ci yéefar yi saxaaba yi leex la ñi leen gën a jege aay boobu bi mu wàccee saxaaba yi xam kenn ku ne dangaa dem seet sa sa baay ba la gën a jege nga nga daal nga fexe ba xeex ba xeex bi njëkk am ci lislaam moom ngay fas ne njëkk a yow te fa te kooka nekk yéefar te nag wala yajidu fiikum bu ñu fekk ci yéen ak doyadi nañ fekk ci yéen ak dëgër ak passeef ak ngëm aay boobu sëñ moom sëñ wax ne xasida yi mu tënki aay bootum boobu ak qul huwa allahu ahad sëñ bi da see jihaat ak ñoom fii ak labbe yi ilahuna ya nasara jan dé ngi jalla an waladin ak jalla an masadin tuubu lahu watruku taslisa wal awada yéen nasaraan yi suñuy suñu buur bii ëpp ëppante naag ñu naan ñett la bàyyi leen ñettal yàlla tuub leen dellu ci yàlla su ngeen tuubee rek li ngeen am da ngeen ko bëgg li li ngeen bëgg da di ngeen ko am wax ne waaye fii ak leen nag ma ma may nekk seenum noonu di jihaat ak yéen di xeex yéen xasida yooyu dem na ci ba su ko ma sànni bind di ko jàng wax na ne ne jeexit ji muy def ci tubaab yi àggoon na ci seen feebar yu garaaw yi fi daan am muy feebar zone yeeg yooyu xasida yooyu ko gënoon garaaw da leen daan alak tubaab yi dee dee gu gaaw gu tegaloo gu bari ba benn bis moom mu laaj ko boroomam moom sëñ bi ne ko waaw dégg tubaab yi dee la ko waral mu ne ko sa xasida jihaad yi ngay taalif ak sa xalima gi ngay jëmale ci ñoom fii ak soo ko bàyyiwut ñoom ñëppay faatu ba jeex ma daal di bind wax ne law annani lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaaba la maata bil wabai kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilahi alxaafiri lakin afawtu an jamii annaasi li wajhi baaqin wala li wajhi rabbin muhlikin xannaasi su ma bàyyiwul woon bind ci xalima googu ci géej gi ci jihaat ñoom ci forma boobu kon ñoom ñëppay faatu ba jeex ci mbas bàyyi ko ci yàlla waaye jéggal naa leen nag baal naa leen bàyyi naa ko daal di bàyyi nag forme jihaat boobu dem na ba wax ne xalimaam sax noon yi dañ ko war a moytu ndax sama congu xalima moo gën a diis si ñoom la gën a metti ci ay mbugal yu ñu leen di teg li yaxdaril mi ngi ci fulk bi ba tey li yaxdaril aadaau satwa mirqami fa innahu ala al ida ka niqami noon nañ moytu sama congu xalima te loolu yaakaar naa ci lambar na waxambaane ba ko doon doon doon jéem a léewtoog moom ci jaas ji ci ci lambar na kooku xam na ki dara moom waaw xalimaam dong la ko joxar bi mu tiit di lox ba daw ci kanamu xalimaam googu xalimaam googu moo moo gënoon a ñaw jaasi wala fet wala épée wala kanu noonu tubaab yi doon bokkaale yàlla nag mu leen di woo ci yàlla ndax daa yàlla moom cheikhul xadim wootekat bu mag bu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci daawa boobu te woote kat buy woote du ko yamale ci mbindeef fii ci nit ñi rek nit ak jinneeg ba ci yépp ba ci géej gi nag mu ne géej gi yow ñi la wër dañuy bokkaale yàlla waaye yow bu ci bokk te li ma lay njëkk a seedeeloo mooy man mii di wax ak yow bala ngaa bala ma laa wax dara bala ma laa digal dara nanga ma seedeel ne man mësuma bokkaale yàlla fii te duma maslaa kuy bokkaale yàlla li yashhad bi kaw nii abda man yaxfiru danba wa kaw nii xadimal mustapha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 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert